yéen ñi safoo seetaan Senego TV senego.com tey ñoo ngi am entretien exclusif ak euh, monsieur Yankhoba Coulibaly nekk euh, coordonnateur bu euh, réew mi bu nekk fii ci États-Unis en même temps nekk nekk en même temps nekk coordonnateur bu diaspora et stratégie réew mi diaspora et stratégie di benn mouvement boo xam ne ñoo ko taxawal depuis 2020 lu toll ci ñetti at monsieur Coulibaly maa ngi lay maa lay fay bu baax euh, waa Sénégal di leen di sant bu baax seen seet si bi ngeen ma seet si fii tey jii. waaw maa ngi tudd Chouaib Koulibaly euh, ñi may gën a xam si turu Jacob euh, comme ni nga ko waxee man may coordinateur réew mi uni unis waaye tamit nekk président réew mi diaspora stratégie kuréel bu nga xam ne dafay lëkkale lu toll lu ëpp si 47 pays pays yu ñuy voté yëpp. yi nga xam ne ñu gis si diaspora bi euh, ñu nekk benn ànd benn say am benn kuréel bu tudd réew mi diaspora stratégie ma nekk président bi. ci biir euh, ci boobu ngay wax réew mi euh, réew mi diaspora tey seen membre ci ñaata la toll depuis 2014 dañ ko créé. 2000 réew mi diaspora stratégie nga bëgg wax. non réew mi maa ngi ci réew mi diaspora. ok réew mi fii fii si si États-Unis fii ok réew mi fii si États-Unis depuis de euh, xam nga parti réew mi moom daanaka booy seet euh, euh, dafa am ay fédération fépp si àddina bi fii Amérique booy seet sax daanaka ñoo jiitu seen seen seen seen juddu sax moo jiitu juddu réew mi parce que yaa ngi fàttaliku bi le président Idrissa Seck amee ay jafe-jafe ak le président Abdoulaye Wade jamono 2004 Euh, boobu la ay doomu Sénégal yi nekk fi Amérique taxaw euh, di def ay manifestation Nations Unies pour ñu bàyyi le président sa Seck donc boobu mun naa wax ni foofu sax la réew mi États-Unis juddu boobu sax réew mi commencé ko waaye yàlla def bi ñu bàyyi président Idrissa Seck mouvement boobu mouvement spontané boobu nekk nag euh, en tout cas taxaw. et que bu euh, réew mi commencé rek ñu tàmbali donc deux depuis jamono bii réew mi di juddu ba léegi réew mi fédération yu njëkk si àddina bi ok du réew mi euh, fii euh, daanaka si la bokk donc léegi nag man militant réew mi laa woon waaye depuis 2014 yàlla def man maay euh, nekk le coordinateur de Rewmi États-Unis euh, ñu si état yu nekk New York bien évidemment euh, ëpp na sénégalais ñu ngi fii waaye ñu ngi si fépp fu nga xam ne rek am na ay doomu sénégalais ci ñu xam leen si si États-Unis bien sûr boo demee Washington boo demee Baltimore côté yooyu boo demee Philadelphia réew mi États-Unis mi ngi fa. boo demee si sud bi euh, Georgia ñu ngi fa Texas ñu ngi fa ñu si euh, maanaam fépp si États-Unis Midwest ñu ngi fa euh, donc maanaam daal fépp si États-Unis rek ay doomu réew mi ñu ngi fa ñoom liggéey bu xaw a metti la nag waaye yàlla def na depuis boobu léegi depuis 2014 daal euh, militant yu takku yu bëgg président du siècle disséminé partout à travers les États-Unis ñoo ngi fii di liggéey yàlla def na ma maay jiite kuréel boobu muy réew mi États-Unis lu tudd exactement. ndax euh, ci biir mouvement boobu ñoo ngi laaj ay ndomba tànk comme élection législative yi jàlloon ndax jotoon nañ ci am ay candidats yu leen représenté fii ci diaspora bi. Euh, yi ñu bokkoon. waaw waaw xam nga euh, élection yi passé élection législative yi passé dafa fekk réew Euh, bokk ak coalition nekk si benn coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar euh, ñu amoon kenn ku ñu tànnoon ku nga xam ne moo doon réew mi moom moo doon euh, maanaam candidat wu diaspora Amérique du Nord Océanie doon la tudd yàlla def ñu tànnoon kenn ku nga xam ne mu ngi bokk si APR waaye réew mi tamit comme dafa bokkoon si coalition bi ànd si liggéey ñu baat campagne yàlla def euh, amuñu ndam waaye vraiment euh, Benno Bokk Yaakaar si si bannière Benno Bokk Yaakaar lanu bokkoon demee si élection et que véritablement si loolu nag la ñu euh, tànnoon ku nga xam ne moom si APR la bokk si élection législative yi la passé. ndax jot ngeen xalaat jàngat bi mooy que ni rek euh, euh, booy seet diaspora bi yëpp daanaka euh, xawoon na metti si benn bokk yaakaar du États-Unis rek nan perte waaye jàngat bu yaatu bi def rek mooy dana war a kon ne liggéey mënoon laa ko jàppee parce que xam nga boo demee di wuti ndam nekk sa élection dem. nga perte te il faut dire aussi que ni coalition bi perte si diaspora bi perte bu metti la jàngat bu laaj la bu bu yaatu la laaj en tout cas ñun en ce qui nous concerne waa Rewmi et certainement benn bokk yaakaar def na jàngat yi mais ñun jàngat bi ñu def rek mooy que ne dana war a gën a taxaw gën a liggéey gën a sensibiliser nit ñi gën leen euh, xamal li nga xam ne moom lañ leen nar a li nga xam ne moom lañu lañu fas yéene fas taxawaay bi nu war a fas yéene am si Sénégal pour seeni soxla donc loolu la réew mi nag ñun euh, dañu bakk su coalition Euh, am mun naa wax une discipline de parti bi euh, réew mi duggee ci coalition bi am na ñoo xam ne jàpp nañ ni waru ko def ñu bàyyi waaye man ak samay ñooñ jàpp nañ ni on fait confiance président Idriss Seck bi nga xam ne jàpp na ni intérêt supérieur Sénégal moo tax mu bokk ci coalition boobu ñu ànd seeg moom ba léegi euh, en tout cas jàngat bépp bu ñuy def ak waxtaan bépp bu ñuy waxtaan au sein de réew mi euh, rek dañ koy wax en étroite collaboration ak si déggoo ak ñi nga xam ne ñooy suñu instance su parti ak ñi nga xam ne moo ñu jiitu mooy le président Seck donc daal jàngat boobu am na certainement mais euh, ñu ngi continuer toujours di liggéey pour en tout cas réew mi en ce qui le concerne buy nekk si coalition ak buy dem moom kese tamit euh, ñu am taxawaay bu am solo si échéance bépp wuy mën a am Sénégal te ñu war si bokk. Euh, ci jàngat ñaari at yi jàng ba ñu yeesalee gouvernement bu bees bi réew mi gis na ci boppam ba jot ci am ñaari poste ministère ak euh, ñaari poste ministre ñu jiite ay ministère ak euh, yeneen post yoo xam ne yu kawe la ndax réew mi jamono ji nag ñoo ngi des lu toll ci onze mois wala dix mois ak élection présidentielle coow yi moo ngi bari ñoo ngi rumandaat ci suuf ndax président ji Seck day doon candidat wala du doon candidat ñuy gis ay tweet yu ñuy def di ko supprimer ak Facebook bi yéen en tant que membre réew mi ndax euh, wala réew mi diaspora ñu nekk fii Amérique ndax pare ngeen pour euh, gunge seen candidat mu dem ci élection 2023 yi 2024 yi absolument absolument xam nga aussi euh, vocation parti politique bu nekk mooy aspirer diriger et je crois que wax ci Idrissa Seck wax na ko mu leer nee na di soppi bi mu nekkee si soppi mooy jamono Ablaye Wade ba tey ji si réew mi vocation musul changer ambition musul changer ambition am dafa bëgg jiita Sénégal donc loolu wax ju la waaye nag euh, politique dafa am nu muy ànd nu muy doxee taxawaay dafa am nu muy muy mel euh, kilifteef dafa am nu muy mel je crois que euh, fi nu toll nii tembe tembe ñaari. mbir si la nekk bu njëkk bi mooy fortifier suñu parti mooy réew mi le président Idrissa Seck si loolu joxe na si ay tegtal yu am solo pour ñu mën a taxaw en tout cas euh, def ay recensement dëgëral suñu parti waaye ñaareel bi mooy ñu consolider la coalition bi nga xam ne dañ ko rek suñu nawle mooy euh, euh, l'APR ak ñeneen coalition benn Bokk Yaakaar waaye nag boo ma laajee man danaa ne. effectivement ñun de pare nañu pour ngemb suñu candidat te jàpp na nañu te ñaan nañu yàlla que euh, Idriss Seck nekk candidat coalition bi en tout cas bëgg nañu en tout cas sama sama si lépp lu ma liggéey ak sama taxawaay mooy pour le pour que Idriss Seck soit le candidat en tout cas soit candidat élection 2024 yi di ñëw. waaw moom bëlëfi nit ci commentaire est que candidat ñaar ñooñu nañ pour pour bokk yaakaaruma ni euh, terme bi la politique dafa am ay réalité euh, boo jiitee mbooloo am daayoo benn bi dafa am noo war a taxawee dafa am noo war a waxee dafa am euh, en tout cas taxawaay bu nga war a am bu bu bu am solo maintenant. Euh, ma wax waxal président Macky Sall comme munu waxal président Idrissa Seck mais li ma xam daal man euh, en tant que militant et responsable Rewmi mooy bëgg naa euh, Idrissa Seck nekk candidat en 2019 te bu soobee yàlla ñu ngi si taxaw man boog si ñi taxaw ci bëgg bu bu leer bu bu bu amul benn naatable que mu nekk candidat Euh, élection 2024 bi si laa bokk donc nag maintenant euh, xëy na ñi si mun nañ jàppe ne bluff la wala leneen en tout cas pour ki nga xam ne mooy ki may jàppale liggéey ak moom ñu nekk ba tey si coalition encore une fois si coalition na nekk waaye daal sama mébét lépp ak sama liggéey lépp ak sama yaakaar lépp mooy que moom Idriss Seck nekk président nekk euh, euh, candidat 2024 ñaan yàlla mu nekk président de la République du Sénégal en 2024. Mmh. ngir ngeen a dem élection depuis 2019 yu ngeen jël seen yoon bopp yeneen yëpp yi fi jàll yëpp da ngeen da nekk ci coalition 2019 ngeen nekkoon deuxième nekkoon leader ci opposition bi finalement ngeen dem rejoindre mouvance présidentielle ndax euh, yéen préparé ngeen physiquement wala moralement ci li am ci bañ gàcce gi ci vote yeeg. Sénégalais yi naa la euh, Idriss Seck wax na ko barki démb te ñun ñi ànd ak moom tamit loolu la ñu jàpp. Mhm. depuis jamonoy soppi ba léegi. depuis bi ñu duggee si politique ba léegi. ba fi ñu toll nii tey. lépp sunu bépp xalaat ak bépp liggéey bu ñuy def sunu ambition mosul changé moom mooy jiite Sénégal loolu nag boo nekkee si si wàccaay boobu boo nekkee si taxawaay boobu. Euh, euh, préparé wu nga bien évidemment euh, psychologiquement moralement waaye tamit physiquement ñaan yàlla mu may la wér ak wér la euh, donc euh, élection euh, dafa nekk lu nga xame dafay dafay inscrire si ay calendrier si benn calendrier si jamono bi mu war a xew mu noo toog si élection yu dem si cinq ans war a dem war a xew dans cinq ans nga commencé di wax si première année bi loolu amul sens mais euh, saa bu jotee saa bu nu jàppee ni war nañu euh, véritablement euh, dëggal suñu bopp waxante ak nit ñi ñu xam fu ñuy jëm déjà donc loolu dinañ ko def en tout cas pour pour dellu si sa question ñun koy wax dëgg yàlla pare nañ bu yàgg on est prêt pour ñu dem si ay élections comme ni ñu ko defee 2007 comme ni ñu ko defee 2019 et bu soobee yàlla bëgg nañ ko def. bu nu yàlla dimbalee def ko si deux mille vingt 2024 bi tamit. ñu gis ngeen génne benn communiqué di wax na lancé ngeen benn genre benn financement pour gunge ko parti Rewmi mu dem ci élection présidentielle bi loolu nan la demee ban genre financement lay doon. waaw xam nga euh, loolu day dañuy delluwaat rek si si RDS moom moo la nettali nee naa la sama beneen. casquette bi ma am mooy que maay président mi Diaspora Stratégie mu nekk kuréel bu nga xam ne ñu ngi ko taxawal depuis bi ñu jógee ci élection deux mille dix-neuf yi bi ñu jógee ci élection deux mille dix-neuf yi perte ko euh, sunu xel nekk ci deux mille vingt-quatre ne léegi fi mu toll nii dañu war a tàmbali liggéey pour deux mille vingt-quatre euh, donc ñu seq ko suñuy nawle ci plus de quarante-sept pays de la diaspora Euh, di si liggéey mais benn pàcc bu am solo si réew mi diaspora stratégie bi mooy yan pexe dañuy def pour mën a bu nu àggee si 2024 euh, am am suffisamment de moyens financier pour dem si élection yi donc nag euh, jàpp nañ ni jot na jàpp nañ ni on est à moins d'un an des élections ñu lancé officiellement collecte collecte de fonds collecte de fonds mooy wut ay koppar pour dem si élection yi loolu nag réew mi diaspora stratégie moo ko moo ko moo ko lancé euh, ñu ngi ko lancé officiellement tey jii sax si euh, dimanche bi la ñu def émission bu ñu xamee euh, mi ngi si Facebook bi lancé ko officiellement def dañ def communiqué wax ñaar bu njëkk bi mooy wax ni ñun de dañoo jàpp ni bëgg ni Idrissa jàpp ni Idrissa Seck mooy suñu candidat 2024 loolu nag boo ko bëggee tamit il faut nga pare parce que lekkatu neen naxu ti béy du dëgg boo bëggee dem élection dafa am nu mu laaj pour nu ñu demee ba dëggal suñu bopp ni dañu bëgg mu Idrissa Seck nekk suñu candidat ñu ne nag léegi dañuy wut ay moyens pour jox ko mu dem si élection deuxième phase bi mooy donc nag ñu war a def euh, ñu commencé euh, euh, maanaam collecte de fonds boobu mooy pour financer élection 2024 yi bu soobee yàlla si loolu na nekk euh, en tout cas diggante fi mu nii ba ñi dem si élection yi yaakaar naa ni daal euh, ñaan yàlla daal euh, gafa gi fees fees lool ñu ñu sensibiliser sénégalais yi te loolu du doon si diaspora bi rek ah. c'est pas que dans la diaspora mais au Sénégal parce que dafa am benn pàcc bu nga xam ne ñu ngi leen tuddee déclinaison Sénégal ñooñu euh, si Sénégal nekk si 46 départements yi ñoo ñuy jàppale pour collecter ay fonds ñun tam ñu nekk fii si euh, biir diaspora tamit am nañu véritablement une structure bu bu am solo bu nga xam ne moom mooy def préconisation mensuelle ñi nga xam ne euh, bëgg nañu joxe lu ëpp li ñuy laajte sax ñu def ko waaye daal am lu nu sas ku nekk bépp doomu réew mi réew mi parti politique wala sympathisant wala képp koo xam ne rek euh, euh, sopp nga sa bëgg si jàpp rek mun nga si jàpp commencé nan ko tey alors euh, donc nga nekk Sénégal nga nekk fii Amérique nga nekk Europe nga fa nekk si àddina war nga mën a participer mun nga ko jaarale si ay plateforme bi ñu xam Sénégal pour yëpp si en tout cas daal flyer yi génn na wax dëgg yàlla collecte boobu daal tàmbali nañ ko tey ji ok ci collecte boobu lu toll ci fukki weer ak juróom ministre de l' intérieur di euh, Antoine Félix Diome génne woon benn xaatim di araftu waa Pastef yi ni ñuy defee collecte de fonds bi ndax euh, article yooyu bu di ci rappeler nit ñi parti politique façon bi ñu koy financé ndax yéen a ngi ciy bàyyi xel. waaw waaw waaw bon en tout cas maîtriser wu ma waa Pastef li ñu doon def comme da ngeen tudd waaye ñun li ñuy def lépp dañ ko saytu bu baax a baax teg ko si yoon. Euh, ndaxte nag ku képp ku xam réew mi xam ni wax dëgg yàlla dañu ànd ak kilifa bu dal bu tey bu nga xam ne lépp lu ñuy def. Euh, def koy xool bu baax xoolaat ko bi ñu tàmbalee encore yi fu ñu préciser que. du moom moo ñu wax ñu wuti ji ñun ñoo ko ne dañ la bëgg a jàppale bi mu ko déggee euh, mu rafetlu ko lool waaye euh, joxe aussi joxe joxe si euh, joxe bénédiction bi maanaam Euh, daal euh, terewuñu ko e def na si gëstu ñun tam def na si gëstu bu mu nekk lu nga xam ne dafay dafa nekk lu lu leer amul lenn lu nga xam ne dafa lëndëm si mbir bi ay sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal ak fii am yéene jàppale seen candidat pour dem élection bi donc di si def seen dërëm ak seen ñaar dërëm donc noonu nañ koy defee donc véritablement en tout cas ñun daal on est te loolu jàpp naa ne din koy defee daal euh, du dañ ko jaarle si yoon ba ba tax du am benn benn jafe-jafe. Mm-hmm. du am euh, ci loolu gis nañu président Idrissa Seck lu toll ci ñaari ay bis mu ngi ñëwoon fii Amérique ndax pour confirmer woon jox leen ndigal ci loolu la wala nemmeeku la doon def pour xool naka ngeen toogee ndax yéen a ngi préparé pour waajal 2024 lan moo dafa amoon mission bi mu doon dox si Amérique waaye bi mu si euh, mission bi mu vraiment xalaat ni euh, am na ay ay ay ay militants yu nekk ak militantam yu nekk fii euh, mu profité aussi. Euh, taseeg ñun waxtaan saafante ak ñun véritablement euh, mu nekkoon lu lu lu am solo mu nekkoon mbégte bu yaatu bu nu am ñun en tout cas toog ak le président Idrissa Seck waxtaan ak moom si situation pays waxtaan ak moom si lii jëm si euh, en tout cas Sénégal lépp daanaka ay ñu am si génn si waxtaan yooyu ak xel bu dal xel bu dal mooy dañoo gis nit koo xam ne Euh, Sénégal ak ko ñor nit ku nga xam dafa bëgg Sénégal nit ku nga xam ne lépp lu ñuy wax daf leen ci jàmm rek la lay wax def na lépp lu ñuy def si Sénégal nan ko teg si yoon nan ko def si jàmm lépp lu jàmm nekkul bokk si et je crois que c'est le message c'est le message euh, bi nga xam ne moom moom moom la moom la ñu bàyyil te loolu nañuy véhiculer fépp mooy euh, message yu jàmm message bu nga xam ne Euh, ànd leen ak dal ku bëgg defar réew doo ko taal ku bëgg defar réew doo ko toj ku bëgg defar réew da nga koy tabax les jeunes comme les vieux ku nekk dafa am euh, en tout cas responsabilité si stabilité réew mi donc tout son discours dafa articulé autour de la stabilité autour de la paix autour du don de soi autour de de, de l'intérêt général donc ku nga xam ne fa bàyyi intérêt particulier am di dox toujours intérêt général loolu nit ku mel noonu lan tasantal véritablement euh, bi mu ñëwee waxtaan nañu def ñu gën a maanaam euh, def ñu gën a ñaax si rek ñu cultiver yooyu valeur donc nag euh, waxtaan bi c'était autour de ça ak de la situation du pays euh, véritablement ñu amoon si mbégte lool lool lool taseeg moom te si lool na ñuy dox wax yàlla. Mhm. jamono ji euh, ci wàllum dañuy président Idrissa Seck dina doon candidat wala doon candidat gis nañu ministre ñoo ko ba dem këram seeti ko ba kileem bu point E. waxtaan ak moom ne moom Idrissa Seck mooy euh, mentoram te lu mu ko sant ko def su bëggee sax mën na wax président mu jëlaat poste ministère boobu ñu ko dénk ndax euh, naka ngay analyser jëf boobu maanaam xam nga euh, kenn doon na wax ni rencontre kilifa ak doom bu nangul kilifaam rek la kilif Idrissa daf def jëf kilifa ndaxte Yankhoba Diattara xëj na am na wax ju nga xam ne wax na ko bu mu waruloon wax si benn jotaay kilifa gi wan ko ni kilifa laa man maay sa kilifa def li muy def jël ay ndogal bi mu ko jëlee tamit doom bi nangu kiliftees ñëw ne ko ah bàyyi de juum naa maa ngi jéggalu di euh, si topp nag euh, wax li mu wax loolu nag euh, jaakaar naa ni amul lenn luñ si luñ si mun a analyser lu dul buñ koy tënk daal kilifa bu bu bu mot kilifa taseeg doom bu nangu kilifteef loolu rek nañ ci wax waaye ku xam jàpp naa ni am na as tuut lu ma xam si Yankhoba Diattara mu nekk ku loyal euh, ku fidèle si président Idrissa Seck et je crois que euh, nettali xuloo xuloo la li xewoon xew na li passé passé na le ministre Diatara ñëw na baalu et que je crois que loolu moom euh, ñu am nañ si mbégte lool ñu ngi xam ne dañ nekk si kepp keppaaru Idrissa Seck. est que xalaat nañ mu delloo ko loolu nag Idrissa ngeen koy laaj <laughs> jàpp nañ ni e moom d'ailleurs je crois que du du nga xam ne def si omnibulé maanaam le le le le le ministre Diatara wax na ko. Euh, avec ou sans poste il est toujours aux côtés du président Idrissa Seck moi je pense que euh, yu bëri teraanga yu bëri jaar nañ fi Diatara comme ni mu ko waxee joxuñu ko mais dafa toujours nekk euh, au service du président Idrissa Seck bi ngeen bu leen fàttaliku ba ngeen yaa euh, n'était pas le vice président ya y a il y a deux ans Déthié Fall moo doon vice président bi bu nekk am na si parti bi et donc euh, véritablement tey jii jox nañ ko keneen je ne pense pas que c'est la fin du monde et que ndax dina ko delloo loolu yaakaaru ma ne loolu sax véritablement mi ngi si xelu jatara li am solo rek mooy. Euh, wax na ni euh, daal euh, Idrissa mooy kilifaam te nag véritablement loolu moom rek moo am solo leneen li si topp nag c'est de l'histoire leneen li si topp nag àddina noonu lay doxee et donc amul benn problème amul benn jafe-jafe si foofu. kon mën nañoo jàpp ne réew mi moom supporté wul troisième mandat. bon réew mi supporté wul man du ma dugg si problème mu troisième wala deuxième mandat li ma xam daal mooy man. Chouaib euh, Koulibaly euh, di nekk euh, le président de Rewmi Diaspora Stratégie di kuréel di nekk responsable Rewmi fii États-Unis coordinateur Rewmi états uni sama candidat daal pour 2024 mi ngi tudd Idrissa Seck jeex na ndax dafay dem si coalition bi nekk le candidat de la coalition wala na dafay dem Euh, si bannière réew mi wala dafay am beneen coalition buy am buñ koy jiitalee loolu xaw ma ko li ma xam daal ak li ma bëgg ak te bëri naa si morom ñu ñëpp li nu bëgg mooy président Idriss Seck nekk deux candidat 2024 maintenant deuxième troisième quatrième mandat yooyu moom euh, du ma dugg si débat boobu c'est du juridisme inutile parce que boo nee troisième mandat keneen ne la non non non c'est pas un troisième mandat c'est un deuxième c'est un deuxième quinquennat loolu moom euh, du ma dugg si ci débat li may wax rek mooy man li ma amal solo mooy sama candidature candidat euh, mooy le président Idrissa Seck. ci beneen ñoo ngi avant bu fekkee am na lu ñu fàttewul rek euh, gis nañ ne yi ci frontière bi jógee Brésil jaar Mexique ba dugg bari na taxawaayu politique boobu ngeen gis Amérique tijji ay frontière am pour ñoom. Euh, réew mi ban solution la ci am ci mbir moomu. waaw loolu daal li ma si am daal sama jàngat rek mooy euh, euh, gouvernement yi dañu war a jàppale seen i seen i seen i doom. muy ndaw muy mag. vo vocation gouvernement dëkk mooy ñu def créer toutes les conditions pour nit ñi am liggéey. gouvernement nag mënul jox ñëpp liggéey. même Amérique fii gis nañ jafe-jafe yi am waaye je crois qu'en amont il faudrait une, une meilleure politique euh, euh, économique, une meilleure politique de l'emploi pour les jeunes notamment. Et c'est un c'est véritablement lu metti la euh, boo leen gisee ni ñu ñëwee songee euh, di jaar si ndox mi di jaar si si suuf si di ñëw ñenn ñi di si indi ay laago yenn mhm. di si ay jafe-jafe wér-gu-yaram yenn di si des sax bon donc appel bu may lancer rek mooy que gouvernement yi am yërmande si seeni population daf lépp surtout pour les jeunes créer créer des conditions pour que ces jeunes-là puissent avoir de l'emploi et je sais que am na ñu bëri ñoo xam ne am nañu profil am xa liggéey bu baax waaye tamit sunu dëkk yi ni muy doxee euh, dafa doy waar euh, donc nag loolu moo tax une raison de plus pour que véritablement euh, candidat bu mel ni le président Idrissa Seck ñu war ko bàyyi xel parce que foofu c'est important ñu xam ko Idriss Seck a beaucoup fait pour le Sénégal. Euh, am na ku ma doon wax sànq ne ma euh, jeunes yi nga xam ne xamuñu Idriss Seck les primo-votants saa bu ñu defee benn clic si internet rek war nañu fàttali ci président di Seck parce que histoire wane na ni moom moo indi internet Sénégal donc c'est important nit ñi xam ko et que. kooku dafa am vision bu nga xam ne euh, bu bu bu sori la pour Sénégal mm-hmm. dafa am vision bu sori pour l'Afrique vision bu sori pour réew mi et donc je pense war nañ ko bàyyi xel et que véritablement bu yàlla defee ba mu am lu mu bëgg yaakaar naa ni euh, ces phénomènes d'immigration mm-hmm. clandestine jóge bitim réew di jaar ci ay si ay désert ak yenn yi di am ay jafe-jafe yu mag dina dañ parce que dinañ créer beaucoup de conditions pour leur insertion professionnelle mhm. maintenant nag euh, Amérique yombul ñëw na ñu ngi demandé wax nga ko ñu bëri ñu ngi demandé asile politique mhm. et euh, malheureusement du ñëpp xam naa leen koy mën a accordé am ñu bëri dina leen rejeté mhm. et que bu boobaa day gën a metti ay yeneen jafe-jafe nay nekk donc ñu leen di ñaanal yàlla daal yàlla dimbali leen génne leen si le gouvernement sénégalais mu taxaw ndaw yi. Mm-hmm. wax nga ko léegi ci ci primo votant yi euh, gis nañu génne nañ communiqué di wax ne dat bi nga xam ne ci lañ war a bindoo ba New York jot na seen wàll ndax niñ ko organiser ak seen membres yi fu ñu nekk ndax yéen a ngi euh, lancé appel seen seen seen seen seen militants yi pour ñu dem. absolument mm-hmm. absolument euh, oui gis naa calendrier bi il faut dire aussi que. Euh, maa ngi Amérique yàgg naa fi. Mm-hmm. ëpp naa fi def naa fi ñaar fukki lu topp. Mm-hmm. waaye gis naa ni at bu nekk quand même y a mm-hmm. déjà consulat Sénégal sax ay jamono amul woon. donc yooyu yëpp yu bees la yu am solo. gis naa ni quand même l'État fait beaucoup d'efforts pour que bépp doomu Sénégal bu nekk. si États-Unis fépp fu munti nekk en tout cas am fu la jege fu nga xam mun nga fa ñëw bindoo pour mun a bokk ci élection yi rafetlu nañ ko bu baax gis nañ ni si état yëpp daanaka en tout cas centre yu bëri fu nga xam ne am na plus de cent Sénégalais yu mun a voter sax def na na ay effort pour ñu mun a am foofu un bureau de vote et ça c'est à encourager euh, gis naa ni ñu war a ñëw New York à partir du 30 je crois que le 30 avril bii la ñuy ñëw euh, New Jersey à partir du premier euh, ba le 3 je crois. trois jours dina nekk fii New York ci consulat bi donc ñu ngi informé suñu militants yi fépp fu nekk wax naa la ko New York véritablement moom mooy fi ëpp ñiy voté je crois que y a plus de la moitié des votants aux États-Unis New York dina fi def trois quatre jours euh, donc sunu mbokk yi nekk fii yëg nañ ko bu weesoo foofu euh, la région euh, atlantique bi bi wax bi ñuy wax mooy Philadelphie Baltimore Washington ak yooyu foofu tam am na am na kii trop Rhode Island au nord effectivement euh, foofu tamit dinañ fa dem am na am na solo mais fi ëpp militaire kii laa wax votant Euh, donc New York la euh, you know euh, région Atlantique bi foofu ma lay wax Baltimore yooyu mais tamit Midwest bi Cincinnati ak ak Columbus dem ba Chicago côté yooyu yëpp Mid Atlantic region bi foofu tamit am na solo gars yi dinañ dem boor yooyu booy seet tamit dina dem si South bi Georgia jëm yooyu yëpp dina dina fa dem côté Houston je crois que en tout cas fépp foo mënti nekk daal Euh, si nekk Sénégalais fépp mun mu nekk si Amérique daal di am opportunité nga nga bindu donc damay ñaax ñëpp ñu bindu en tout cas ñu ngi wax suñu militants yi pour ñu dem bindu ji. Euh, en tout cas euh, di ñaaxaat sénégalais yi ne nanu jàpp bu baax si collecte de fonds bi parce que loolu mooy en tout cas surtout les militants de Rewmi les sympathisants ñu jàpp si parce que loolu mooy tax ñu. mën a dem ci élection euh, sans souci parce que aussi euh, le nerf de la guerre ni ñu koy waxee xaalis am na solo trop si si ci mbiru élection ni euh, si jàpp ni seen bopp nañ koy defal parce que ku nekk Amérique xam na ni xam na lan mooy important su nit ki def ñaxam su fekkee ni mu ngi supporter candidat gis nañ ko barki démb Donald Trump biñ ko woowee rek teg parce que dafa bëgg dem ay élection Euh, biñ ko woowee rek loolu sax dafa doppe sax daanaka campagne bi maanaam euh, euh, les les souscriptions volontaires je crois que si soit de de quatre cinq jours rek il a pu amasser plus de quatre millions de dollars. c'est important que nit ñi xam ne ce sont les militants ñi nga xam dañoo bëgg am seen candidat ngem seen candidat ñoo war a indi seen i dërëm. seen déem ak seen ñu waxee si olof encore pour ñu mun a boole lépp pour ñu mun a dem élection donc daal maa ngi woo ñëpp xamal leen ni euh, collecte bi tàmbale na lancé nañ ko officiellement ku bugg yónnee xaalis si plateforme yu nekk Sénégal yëpp euh, yi ñu xam euh, mun nañ ko utiliser ku bëgg yóbbu tamit sa xaalis def ko si contre réew mi bi nga xam ne réew mi diaspora stratégie sous compte bu réew mi tamit mun nga ko def mais en tout cas daal euh, certainement dinañ gis communiqué bu dinañ dugg si dina dugg baax si réseaux sociaux yeeg yooyu yëpp euh, dinañ ko def pour nit ñi mun a euh, véritablement xam ne collecte boobu tàmbalee ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen di en tout cas jox daje dox daje fan yu néew certainement si si yeneen question d' actualité politique merci. naa leen ko ko def. ah ouais merci.